Partager como hiato. ñu ñëw def ak yéen waxtaan ci li nga xam ne xew ci mi ci ay njuuj njaaj ak i tappale yu dul jeex jëm ci li nga xam ne mooy élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal di sàkku ci mbokk yi ñu ko mën a partager mu partager ko yaatal ko gën ñu ñoo xaw a déggante effectivement dama jëloon benn break euh, def benn pause bu ndaw nekkoon ci ay dossier yu ma doon topp ay enquête yu ma doon def waaye tamit euh, xawoon na grippé feeñ ci baat bi sax waaye ñu ngi xaw am tan tuuti doon observer aussi évolution politique bi ci Pastef ak ñu nekk ci nguur gi lépp ma di ko xool di def enquête ci suuf aussi nda ma ne woon damay bàyyi sax ba semaine prochaine wala ba ma gëna a tane tuuti soog ci dik mais comme ni ma digalé won ak yeen ma len du taw buy neige bu ñuy sukurat bu ñuy dund bu ñuy dé ba ci suñu bir bameli dañuy and ak yeen di len indi li nga xamné moy li leen jariñ di len yé di len gindi di len jox ay information yu tax ngeen yeewu ba kenn dootu len nax ndax naxé gi nekk ci réew mi motax réew mi du dem motax ndol gi bari effectivement sedd bi dugg na ci dëkk tubaab bi sedd bi buy dugg day indaale virus ak yu baree bari yoo xam ne grippe yeeg yooyu sedd bi da koy indaale mu nekk lu naturel nekk lu normal <coughs> jàpp yenn organique yi euh, di wax nañu ko partagé mu TikTok YouTube ak Facebook ñu ko mën a partagé mu yaatu waaw donc ñu xawma ni ngeen koy waxee tapoté xawma ak euh, gis ngeen ne temps yi Facebook bi dañu restreindre compte yu bari wàññi doole yi loolu nag c' est normal parce que nguur gi day fay ay milliards pour ñu restreindre yenn compte yi nga xam ne jàpp nañ ñu lañ fay génne arrangé wu leen ndax ñoom xam ngeen ne dañuy sàcc alalu réew mi di jël alal jooju di ci fay ay tiktok ay facebook ak ñeneen pour ñuy wàññi doole yi suñuy wax pour wax ji bañ a sori bañ a àgg ñu bari bañ ko dégg ndax bu ngeen ko déggee di ngeen ci yeewu te bu ngeen yeewoo naxaate yi dakk naxaate googu nag depuis Senghor ba léegi dañ leen di nax kenn mosu see ñëw nekk ci askan wi moo tax ndóol gi mosu fee jóg ndax ñi ngeen di fal ñu ñëw di leen fen di leen laaj seeni baat bu ngeen leen falee dañ leen di nax ci lañuy ñuy waajaat ñoom ñi ngi waajaat ay fen yu tey xep te ay milliards lañ yore yoo xam ne dara lewu ci kon yéen ñi nga xam ne yéen ay askan wi ñu di leen nax bu ngeen amul ful la taxaw di partager di yaatal di invité di dagg-daggee di dugal ci YouTube bi di dugal ci groupe WhatsApp bi ci àll beeg village yi nit ñi yeewu xeex boobu seen xeex la bu ngeen ko deful tamit réew mi du mas a dem ñu nekk ci ndóol ndóol lañuy juddoo ci ndóol la ñuy dund ndóol la ñuy bàyyi seen njaboot gi comme ndonu seen njaboot gi ñuy jur ci ndóol la ñu ne seen njaboot googu ci ndóol la ñuy donn ñoom it ci ndóol la ñuy dund di ko donnante ngeen donnante ndóol ak ñàkk ak fàqe ba keroog yàlla di wal bul loolu nag mën na fay jóge ci kaw ñu àndandoo xeex ko donc li aju ci kenn ku ci nekk jàppal ma jàpp kenn bañ ne rek naa toog di seetaan di déglu sama yoon nekku ci kenn ku ci nekk da nga am pàcc ci xeex bi am ci loo ci war a def soit ngay wax wala boo mënta wax nga mën a jokkalante partager mu yaatu ku nekk mën cee jot enregistré ko ci sa téléphone dugal ko ci say groupe whatsapp bu famille dugal ko ci say groupe whatsapp bu dëkkandoo groupe whatsapp bu koñ groupe whatsapp bu tem moo xam ñu yor laadum moo xam maçon moo xam menuisier moo xam groupe yëpp secteur d' activité métier bu ci nekk am na ay groupe whatsapp ngeen tàbbal ko fa nit ñi mën koo déglu déglu rek la wax déglu après kenn ku nekk nag yaay xool li ngay jàpp ak li ngay bàyyi li ngay jël ak li nga du jël waaye déglu rek ndax suñuy wax ak suñuy teg ci ko taabal ji wóolu nañ ko wóolu boo xam ne képp ku mu dugg sa nopp dina am lu fa bàyyi loolu xam nañ ko moo tax du ñu forcer kenn du ñu forcer kenn déglu rek boo dégloo boo déggee. ala kulli al di nga am loo téye su ñuy wax parce que duñuy wax xam nañ ko duñuy wax xam nañ fi ko teg làmbatuwuñu waxantuwuñu tey ñu bëggoon na ñëw dafa yéen waxtaan ci benn mbir bu am Grand Dakar mairie Grand Dakar ci la wax ak yéen tey mairie Grand Dakar mu bëgg ngeen partagé ko mu yaatu lool parce que mairie Grand Dakar dafa am ay scandale yu graw yu fa am dafa nek mairie bo xamne dafa am ay enjeux yu maga maga maga a mag ci election yu jëm election présidentielle dafa am ay enjeux yu am mairie Grand Dakar kafa nek maire ñu koy wowe Jean Baptiste Diouf Jean Baptiste Diouf moy maire Grand Dakar wa Grand Dakar woon ngeen ko xam jël leen live bi ngeen duggal ko ci groupe bu whatsapp mairie Grand Dakar partagez len ko ci groupe whatsapp wa Grand Dakar yi fekke amna ñu fi nek xam groupe whatsapp groupe whatsapp yi Grand Dakar boy Grand Dakar yi sen groupe whatsapp Grand Dakar yëpp wa Grand Dakar yëpp xam li xew. ay live yu bari la tey benn laaj yi def dinaa ñëwaat defaat ci ñaari live détaillé na li xew enjeu yi nekk Grand Dakar yëpp yéen Grand Dakar ngeen xam ko. Grand ah, ngeen jéggal ma de xaw a yaram dafa xaw a sutante waaye du tax ñu bàyyi. mbakki yu fay moo fa nekkoon maire ci temps Abdou Diouf mbakki yu fay tey bi ngeen xam mbakki yu fay bi yor grand euh, bi yor euh, Masaalikul Jinaan yu fay moo nekkoon maire Grand Dakar ci temps Abdou Diouf bi mbakki yu fay deme Jean Baptiste Diouf bi boobu ba léegi moo fa nekk maire at bu nekk mooy remplir Jean Baptiste Diouf euh, kan mooy Jean Baptiste Diouf Jean Baptiste Diouf jarbaat la ci Léopold Sédar Senghor Léopold Sédar Senghor njëkk a nekk président njiitu réew ci Sénégal ndax waajuru Jean Baptiste Diouf yaayam bu jigéen ak Léopold Sédar Senghor ñoo bokk benn ndey yaayu Jean Baptiste Diouf maire de Grand Dakar. ak Léopold Sédar Senghor ancien président ñoo bokk benn ndey jarbaat la kon ci Senghor liggéey na Caritas nekk ci biir église bi mu am benn mafia bu nekk ci biir église du Sénégal mafia boo xam ne bés bu nekk ma tuddee leen la mafia politico maraboutique di wax na état ak marabu yi dañoo ànd lënkaloo depuis tubaab bi mais loolu am na lu ko jiitu muy mafia bi nga xam ne état ak église moo ko ñoo ci ànd di ko dox mafia boobu mi ngi biir Sénégal dinaa ci dikkaat wax leen mafia bi église bi nekkee ak état yi fi nekk depuis Senghor lu ko jiitu sax depuis tubaab bi colonisation mafia bi nekk ci biir église bi dina ko génn leer ba ngeen xam ne du mara yi rek du musulman yi rek ñoo nekk ci mafia politique bi mais même l'église est dans la mafia politique te Jean Pierre Jean bii ma leen di wax su ma leen waxee mooy kan. di ngeen xam réew mi lan moo ko tee dem <coughs> ma bëgg ngeen partagé ko ba Sénégal gépp xam li xew Jean-Baptiste Diouf dafa nekk ci église bi di katolik nekk ci église bi lënkaloog mafia wu église bu Vatican bi liggéey Caritas xam ngeen Caritas ku ne Caritas ne service de renseignement du Vatican Caritas Vatican ñoo ko créé pour def ay ndimbal sociale mais sociale bi dañ koy mbubboo waaye ñoom ay renseignement ay service secret la ñuy liggéey ñoom dañuy liggéeyal Vatican dafa am ay renseignement comme ni ko Israël amee Mossad de yëpp Vatican dëkk bu ndaw la mais dañoo am service de renseignement yu garaaw am ay secret yu garaw ci aduna bi yëpp fépp fu Caritas am ku fa liggéey rek RG nga renseignement général nga moom Jean Baptiste Diouf bi liggéey na Caritas nekk ci biir église bi ñu am seen lobby boo xam ne c'est le lobby des catholiques du Sénégal yoo xam ne dañuy influencer la politique du Sénégal bu état bu fi ñëw président bu fi ñëw ñoom dañ lay influencer donc influence bi du Touba ak Tivaouane ak kese de déedéet église bi moo gën a garaaw influence su église bi dinaa ci dikkaat mu gën a yaatu parce que bëgguma laayif bu gudd parce que dama xaw a yaram bi dafa sutante Jean Baptiste Diouf bi ci pion yooyu la bokk dañu am ay mbootaay ci biir église bu am doole bu influente boo xam ne moom Jean Baptiste mi ngi ci biir Jean Baptiste boobu jarbaatu Senghor mooy maire Grand Dakar depuis Mbackiyou Faye nekk membre parti socialiste bu Ousmane Tanor Dieng Tanor dee na Jean-Baptiste nekkoon na député maire mais élection yi passé faluwul euh, député maire la léegi il nekk maire de Grand Dakar Nous tax ma Grand Dakar dafa am ay enjeu yu mag ci élection yi dinaa ki dik léegi Jean Baptiste Diouf maire bi Grand Dakar xaritu Pierre Goudiaby Atepa Pierre Goudiaby Atepa catholique dans l'église Jean Baptiste Diouf xaritu Jean Paul Diaz papay Judas Diaz Barthélémy Diaz papam Jean Baptiste Diouf ak ki nga xamne moy Jean Paul Diaz ñom ñëpp ay catholique lañ c'est la mafia de l'église catholique sénégalaise dans le jeu politique sénégalais depuis Senghor ah su ma leen waxee donc link yi war ngeen xam waxantuwuma làmbantuwuma te li may wax yëpp dama ci am ay preuve ay éléments laa ci am. léegi ñoom église bi dañuy jouer dañu am kuréel boo xam ne ci biir église bi ñoom seen ay lobby seen ay club yu liggéey pour man di influer dans la politique sénégalaise man di am doole ci biir képp ku fi falu buñ mën ta fal seen nit ñuy fexe ba ki falu tamit di leen déglu ci seen wàllu pas-pas seen wàllu ay intérêt les intérêts de l'église, parce que n'oubliez pas que église dafa bokkoon ci état avant la révolution de 1789 en France. L'Église était membre à part entière de la monarchie et, de, et, des royautés en France et partout. Il a fallu faire une révolution avec les francs-maçons pour dégager l'Église de la mémise, donc de l'État. Une dindi église nangu ay patrimoine yu bari église bi ñak doole ñu dem à Vatican am Vatican T dans le monde ils ont des biens et des patrimoines colossal ils travail comme Israël comme services de renseignement am ambassadeurs euh, envoyé dans les états États, Vatican état la a service de renseignement des lobby Sénégal Vatican. Vatican moo leen gënal Sénégal Jean Baptiste Diouf ak ñoom ñi ñoom ñu nekk ay Vatican ay Jean Paul Diaz ak Barthélémy Diaz ki ay ñoom Atepa ak ñooñu servir Vatican keroom Vatican moo leen gënal servir Sénégal ils sont plus pour pour Vatican que pour le Sénégal duñu ay patriotes ñoom gëmuñu seen gëmuñu seeni réew ñoom église bi la ñuy liggéeyal donc dañ leen di nax ci social caritas may nañ ñu ndox bëttal nañ ñu teen tabaxal nañ ñu ñaari euh, classe de salle de classe ngeen kontaan tàcc ñu ñëw indi ñetti saako ceeb jox leen ngeen lekk ñu ne caritas église bi moo ko def système de renseignement la li ñu jël ci yéen comme ay renseignement di leen manipuler di leen bàyyi ci ndóol moo gën a garaaw fukki junni leen vatican li ñu yor ci ay renseignement kenn yoru ko ci renseignement dans le monde d'ailleurs vatican seen système de renseignement ñoo inspiré la mossad israélien c'est le même système ko defee ngeen di wëndeelu rek yéen ñu noot leen di leen nax di teg ay nit yoo xam ne ci seen service la ñu nekk mosu leen a dégg benn yoon église bi yëngu Sénégal mosu leen a dégg ñu wax parce que ñoom li ñu bëgg ñëpp ci réew mi ñu koy am bari wuñu mais ils sont très influents église catholique bu Sénégal doole bi mu am ci état depuis Senghor ba ba ci Macky Sall doole bi mu am Mountakha Mbacké amu ko Mbaye Sy Mansour amu ko li ñu mën ci Macky Sall ñoom église bi ñoom mënuñu ko Macky Sall église bi la gën a respecté que Mountakha ak Mbaye Sy Mansour te pourtant yéenay majorité ci réew mi parce que organisé wu leen amu leen fulla vous les musulmans vous n'êtes pas organisé amu leen fulla amu leen ki naan murit la ki naan xaadir la ki naan ñaseen la ki naan taaleen la ku leen ngeen ànd ki naan laayeen la ngeen kii moo judd ci géej gi kii moo puus géej gi nekk te a ànd nekk benn say réew mi fu leen bëgg mu jublu fa mu jublu fa ngeen ñàkk fayda ba am minorité bu ndaw église bi doole bi mu am ci réew mi ay bëgg bëgg-bëgg ñu nekk majorité ci réew mi parce que démocratie la ñu nekk loolu la ñu wax démocratie c'est la loi de la majorité moo war a dox mais bëgg-bëggu église bi moo ëpp doole minorité boobu bëgg-bëgg ñu ëpp ci réew mi nekk ay musulman parce que jubóowuñu ànduñu dañoo bañante kii murit la kii xaadir la kii tijaan la kii laayeen la ko taxaw réew mi ngeen jubbanti di ngeen ko def parce que voilà nekku leen vous n'êtes pas rationnel yu ñak fay ngeen nek <coughs> Jean-Baptiste Diouf maire de Grand Dakar mom ci élément Ousmane Tanor Diaye la bokk parti socialiste Ousmane Tanor Dieng dee na Jean-Baptiste Diouf nee na candidat la ci élection présidentielle yi ñu jëm di février 2024 élection yi Jean-Baptiste Diouf nee na candidat la ci mais dafay gëmloo Sénégalais yi ne moom candidat wu parti socialiste la parce que parti socialiste mënta ñàkk candidat donc moom comme ñoom Aminata Mbengue Ndiaye dugg nañ Benno Bokk Yaakaar jox seen bopp Macky Sall takk buum pour mu rendi leen ñoom Aïssata Tall Sall ñoom ñëpp. déggu amuñu candidat Jean Baptiste Diouf nee mom candidat wu parti socialiste la loolu lay jaay ci kaw yeen ñëpp loolu lañ leen di jaay mais demeewul non Jean Baptiste Diouf candidat élection présidentielle maire Grand Dakar Jean Baptiste Diouf nee candidat la parce que Amadou djoul de Ba le Guinéen Amadou djoul de Ba bu Pita. Amadou Julde Ba moo ko samp ko nekkal candidat pour nga liggéeyal ma ramasel ma électorat bi yëpp après nga jox ma ko Jean Baptiste Diouf maire de Grand Dakar candidat la ci élection présidentielle yi Amadou Julde Ba guinéen Pita Amadou Julde Ba bi nekk premier Sénégal ko nekk guinéen Amadou Julde Ba te nekk jëkkëru Billo Billo Ba Billo ngeen naan bili du bili de bili c'est Sénégal dañ ko sénégaliser dañ ko tropicaliser Bilio Balla tudd jóge Guinée moom ak Amadou Ba ñoom ñaar ñëpp ñu jóge Guinée seen papa yi jóge Guinée ñu ñëw Sénégal piita Amadou Jules de Ba boobu moo ñëw Sénégal di naxante ba bëgg a nekk président Sénégal te du sénégalais te li ma leen wax am naa prévu te le moment venu naa leen wax ne Amadou Ba du sénégalais te moom xam na du sénégalais lan mooy enjeu bi mairie moy Amadou Julde Ba je suis dem seeti Jean Baptiste Diouf mais avant mou koy je Macky Sall dafa jël les inspecteurs généraux d'État IGE ñu dem auditer maire Dakar yépp pratiquement wala certaines maires cibles cible ñu auditer leen biñ leen auditer avons am ñun ci japp ci ay malversations financières bokk na ci mairie yooyu mairie Barthélemy Diaz bi mu yoroon avant mu yor mairie Dakar bokk na mairie Barthélemy Diaz bi mu yoroon Sicap Mermoz xaw ma lan mairie boobu dañ leen audité jàpp nañ leen ci ay malversation financière Barthélemy Diaz bi ngeen dégg muy wax dinaa ci dikk bokk na ci mairie yooyu mairie Grand Dakar bi nga xam ne Jean Baptiste Diouf moo ko dirige ay recette yu bari ay centaines de millions yu ñu waroon au niveau donc de la perception bi nekk ci Bourguiba les impôts et domaines bi nekk ci Bourguiba bi nga xam ne boo ay impôts local donc, koy verser au niveau donc de la perception parce que au nom donc du principe de l'unicité des comptes l'État n'a qu'un seul compte c'est le trésor public même si les mairies ont un certain nombre de souplesse pour pouvoir collecter des taxes, mairie mairies nañu lever ay taxes taxes yooyu bu lever mairie dañ koy verser au niveau donc du compte trésor le compte trésor c'est le compte de l'État mairie Sénégal yep, ont ñu taxes dañ koy au niveau du trésor après état a fait koy delloo dans le cadre de leur budget mais bu ñu collecter ay impôts dañ koy dugal trésor ñu comptabiliser ko ci seen budget seen dotation yi mais Grand Dakar dañuy collecter ay taxes di ko lekk duñ ko yóbbu trésor te ki def loolu mooy ñaar ñi nga xam ne ñoo gën a jege Jean Baptiste Diouf ci mairie bi kenn ki mooy secrétaire municipal bi tudd Angèle Thiaw keneen ki di neveu am jarbaatam bu mu jël nommé ko ci maire bi jox ko mu responsable état civil état civil mooy fi ñuy déclarer naissance yi fi déclarer décès yi fi ñuy extrait de naissance yi voilà état civil fini ñuy déclarer mariage état civil bi nekk ci mairie Grand Dakar qui ko yore muy Biram Biram Biram Biram comment encore ki ko yore di Biram Biram Bass Biram Bass jarbaatu Jean Baptiste Diouf maire Grand Dakar Biram Baas boobu moo yor état civil état civil mooy fan mooy fi boo juddoo fi lay déclaré ci maire bi boo dee fi ñu lay déclaré ci maire bi booy def mariage fiñ ñu lay déclaré ci maire bi boo bëggee kayitu judd fi ñu koy utee ci maire bi mooy état civil ci maire bi maire bi dafa jël jarbaatam teg ko fa bu ñuy wax Biram Baas dama bëgg ngeen déglu mu bu baax ngeen partagé ko wax bi ngeen dagg-daggee dugal ko ci waa Dakar Grand Dakar ñu xam ko. ñoom taxi yi ñuy jël ak li ngeen di fay ci mairie bi juuti yeeg yooyu bu ñu ko daggalee duñ ko yóbbu impôt déposé ko fa ndekk dañ koy lekk seen biir moom Biram Baas bi yor état civil ak ki ñuy wax Angel Thiaw Angel Thiaw mooy secrétaire municipal bi maire Grand Dakar ginnaaw maire bi Jean Baptiste Diouf moom mii maire daf ko teg ci ñaari loxo yoo xam ne kenn ki mooy secrétaire municipal bi di Angèle Thiaw keneen ki di responsable état civil bi di Biram Baas di gerbaatu maire bi ñoom ñaar bi ñu audité ñëw ci maire bi di def audit et IGE inspecteur généraux d'État yi ñoo ñëw def audit condition yañ defee audit baag ak la ca xew ak yooyu dama koy tëb bañ mu gudd ci ne leen du ngeen dugg ci institution mairie bi sans mandat de perquisition wala mandat du procureur def dilatoire parce que dañ leen a bett ñu jël ay preuve yu bari lakk ko avant que ñuy ñëw def audit lakk ko mais bu ñu lay inspecté si nga jël ay preuve pièce comptable lakk ko sa bopp ngay gën a dugal parce que ñoom bu ñu ñëwee auditeurs yi xam nañ bu baax li ñuy def les juges duñu ay caaxaan moo tax bi ñu ñëwee bi ñu defee audit bi laaj leen ay yenn pièces yi ñuy nakk nakkal amuñu pièces yi lii dafa réer rek fekk ñoom ñoo ko lakk dañuy def rapport bu garaaw ci ñoom ay détournement yi ay centaine de million yoo xam ne def rapport jox Macky Sall Macky Sall téye Barthélémy Diaz maire bi mu nekkoon ci Cap Mermoz pare Macky Sall nag bu fekkee da ngaa bokk ci kujje gi opposition bi même ñi ànd ak moom da leen ñu audité toujours da lay bàyyi ngay sàcc mu xam ko mu lay bàyyi ngay sàcc ngay sàcc ngay sàcc mu xëy benn bis yónnee la ay IGE ñu ñëw Cour des comptes ñu ñëw audité la jàpp la Macky xam na da ngay sàcc de mu jàppale xam na da ngay sàcc moo xam ñi ànd ak moom ak ñi ko contre ñëpp mu jël dossier bi téye woo la ne la kaay toog nga ñëw mu ne la yaa def lii ak lii lii may defal lii ak lii ak man ma teg ci sama tànk xam moo ne woon dossier yu mag yi moo ci teg kuddam moo ci teg coñcoom Macky Sall la ko wax ñëpp yi dégg xam nga sosaluma ko moo ne maa ci teg sama coñc dossier yëpp moo ci teg coñcam da lay bàyyi ngay sàcc mu xëy jàppalu la woo la ne la sàcc lii ak lii. soo bëggee ma teg ci sama conc defal ma lii ak lii ak lii mënoo ko ma yóbbule ci kaso bi laaj leen Khalifa Sall laaj leen loolu Khalifa Sall ngeen baal ma dama xaw a je suis très encombré mais mënu ma ñàkk ba ñu def live dégg ñu jàpp Jean Baptiste Diouf maire de Grand Dakar Barthélémy Dias bi ngeen gis ñaan wuy dama seeti Macky Sall maire moo tout ça déedéet dañ koo njat dañu yor dossier ci moom dossier yu garaaw audit bi ak yeneen yeneen yoo xam ne dinaa ci dikkaat Macky Sall da koo téye ci ay yu garaaw a garaaw a garaaw scandale d'état dinaa ci ñëwaat moo tax mu lemu ànd ak Macky Sall moom leen Dias ak Jean ak Amadou Ba premier ministre Amadou Pita Ba Amadou Julde Ba moom Barthélémy Dias ànd nañu dem guddi dem seeti ki nga xam ne mooy Jean Baptiste Diouf ci biir bureau à la mairie de Grand Dakar tëju nañu fa ci mois de novembre bii passé mois de novembre bii ñu nekk am na bis boo xam ne ci guddi Amadou Ba Amadou Pita Ba Amadou Julde Ba premier ministre ak Jean ak Barthélémy Dias ànd nañu dem ci bureau Jean Jean Baptiste Diouf maire de Grand Dakar ñu tëju fa wax li ñuy wax mu ne leen ak ne toon waxal gars yi ñu tàppote waaw tàppote xawma mooy lan nee nee na nee na ma wax leen ngeen tàppote am na ku commenté nee na ngeen tàppote tàppote live xawma nag luy tàppote live yéen ñu nekk TikTok xam na ku bind ne Akhenaton waxal gaa yi ñu tapoté live bi kon tapoté la live tapoté xawma mooy lan nag bon man xawma xay kii xam nga man yooyu yëpp xawma ko tapoté kon boog tapoté tapoté ngeen dimbali ma ci parce que man dama concentré wu ci li may wax mënuma bàyyi loolu nekk ci yoon ngeen jéggal ma mais léegi leen ma sàcc rek xool tombé ci benn commentaire kon waji ne waji commentaire na ak na tol waxal gaay ñu tapoté live de tiktok kon tapoté le live tapoté le bon mënuma tout temps di ko après ngeen japp ci ku nekk japp parce que limay wax c'est important bëgguma perdre sama fil bëgguma limay wax jaxaso motax japp leen ci côté boobu ah boo tapoté live bi day yéeg mu ne tapoté pour live bi yéeg ok tapoté lal lal basang bi penc mi doxalal ak d'accord alors xawma ma nee na live bi day yek waaw youtube tamit comme c'est comme ça partout facebook tapoté moy partager kon ok nee na boo live bi day gëna yek ok waaw waaw ah, kon tapoté tapoté tapoté parce que limay wax dama bëgg mu ag ba ci sama mbokk ya nek ca kaw ga ya nek fajut ya nek jowal ñi nga xamne ñom lañuy nax ñi nek mbour département de mbour parce que bu len fàtte ne limay wax yépp nga département de mbour de din département de Mbour parce que département de Mbour dafa bari electori care région de Thiès la bokk de Tanor Dieng mi ngi Ndiédiène Jean Baptiste Diouf mi ngi dëkk pentru că que jarbaatu Senghor la ñu bari xam nañ ko notabil la fa ma nga fay dem jamono yii de fa maye ay cinq cent mille ak i chef de village pour mobiliser leen ñoom ñëpp parce que électorat bi dafa am solo ci département boobu te dañ ko war a gagné mais milieu catholique bi tamit dañu am lobby ci biir état bi moom lañ jiital ci wàllu église bi dafa bari foofu côté côté côté côté département de Mbour ak région de Thiès sax laay wax dafa bari ay catholique foofu mooy seen fief dafa am ay enjeux culturels ay enjeux sociologiques politique yu am importance yoo xam ne moo tax ñu tànn ko moom am lu ñu koy liggéeyloo te Amadou Ba moo ko tànn Amadou Ba moo ko def candidat candidat wu Amadou Ba la pour rassembler que tous les catholiques du Sénégal pour ñu mën a jàppale Amadou Ba pour mën a jàll déglu leen bu baax li ma leen di wax ngeen tapote kon live mu yaatu. plus il tapote, plus il y a le nombre de j'aime en haut à gauche augmente. ah d'accord waaw xam nga tu kenn ku nekk li nga xam benn commentaire bu lire le TikTok plus il tapote plus il y a le nombre de j'aime je sais pas kon donc tapote tapote tapote tapote tapote tapote tapote tapote tapote acca acca tapote leen Caajaay Joal Fatick Diofiyor foofu yëpp Jean Baptiste Diouf maire Grand Dakar la ñu pour mu dem liggéeyal Amadou Ba foofu yëpp dajale séeréer si catholique yeeg yëpp comme jarbaatu Senghor la am na tur wu rëy Senghor nekkoon na président yaayam Diouf la sant ko naka la yaay gi tudd soo joxoon nañ ma tur yaay jox ma naka Senghor ci taawu Senghor bu ngeen demee HLM bu ngeen demee Fass Fass Fass en face marché Fass am na six six immeubles yu fa nekk ay immeubles yoo xam ne am na pharmacie bu nekk ci suuf si benn bi. immeuble yi face immeuble jaune yooyu immeuble en face marché face immeuble Jean Baptiste Diouf moo ko état du Sénégal moo ko ñu waroon fa def ay HLM wala boog xëy na nañu HLM ci temps wu Senghor Senghor jël ko may ko Jean Baptiste Diouf mi. kon alalu Sénégal le Senghor jël may ko jigéenam bu jigéen ku mbokkal nday ku sant Diouf ku sant Diouf moo maire Grand Dakar di Jean Baptiste Diouf Jean Baptiste moom moom patrimoine bi parce que bi seen nday dee ku jigéen daf ñëw daf leen a ñu nekk ñaar ñu góor Jean Baptiste amoon na frère bu góor mais frère ba dafa décédé ci ay conditions yu terrible yoo xam ne ci taxaw ndax dañ doon xëccoo moom ak Jean Baptiste Diouf ñii maire bi patrimoine boobu nga xam ne seen yaay moo leen ko bàyyi loon te seen yaay Senghor moo ko ko mayoon ci suñu alalu réew mi ñun pour xamal ne réew mi yàgg nañ ferandal suñu alal moo tax ngeen ndóol léegi bi seen ndey dee jigéenu Senghor sëram six immeubles yooyu ngeen gis face en face marché bi Senghor a ko joxoon jigéenam bu ñuy wax xaw ma Mariette xaw ma Marième Diouf moo jur Jean Baptiste Diouf mi tur bi dinaa leen ko dir exactement parce que bindoon naa ko mais Diouf la sant mook Senghor ñoo bokk benn ndey Senghor jël suñu jox mu dee ñaari doomam yu góor Jean Baptiste ak frère am ñu di ko ba benn frère bi dee ci ay conditions yoo xam ne c' est nébuleux c' est suspect Jean Baptiste jël alal ji yëpp toog Jean Baptiste boobu ak Pierre Goudiaby Atepa ñoo bokk daanaka benn ndey ak benn baay ay xarit la ñu ñu takkoon ndax église bi moo leen boole seen club yi nekk ci église bi mafia bi nekk ci biir église bi moo leen boole ay catholique lañ Pierre ma wax leen lan moo tax keroog Macky Sall toog ca fatigue gi dal ci kaw Pierre Goudiaby Atepa ne escroc la lu tax mu wax ko wax boobu mi ngi jóge ci lii ma leen bëgg expliquer parce que da ngeen di dégg Macky Sall di wax te du ngeen xam wax ji fan la jóge ak lu tax muy wax parce que Jean Baptiste Diouf maire Grand Dakar xaritu Atepa benn bakkan la ñoom ñaar dañuy yàgg église bi moo leen boole seen milieu catholique moo leen boole ki nekk jola ki nekk Séeréer ñu bokk église bi genre secte la bu nekk ci biir église bi bu garaaw bu puissant bu ngeen àndee nekk ay frère comme franc-maçon loge yu garaaw la. Jean Paul Diaz mi ngi ci biir Barthélémy Diaz mi ngi ci biir ak Augustin Senghor maire Gorée bi yor fédération Sénégal de foot ñoom ñëpp ñu ngi ci biir lobby bu puissant la moo gën a garaaw bu Touba moo gën a garaaw bu Tivaouane am na dañu am doole te bari wuñu mais dañu am doole. kon ngeen tapoté tapoter tapoter le le TikTok bi amee. Jean Baptiste domam bu jigéen bi ni marié wu Atepa la ko bàyyale Atepa mooy parrain bi tellement dafa jege Atepa ñom ñaar patrimoine bâti bi Jean Baptiste am Atepa moo koy gérer moy architecte bi moo koy defal yu bëree bëri transaction immobilière ñu def ñom ñaar dañu seq ay business d'ailleurs immeuble yoy nek face en face marché bi ma wax ne Jean Baptiste moko don ci yayam amna ci bo xam ni ngi ko don waxaale ak Atepa pour jaay ko donc dañu bok ay business. di Jean Baptiste ak Atepa Atepa tamit di confier wu ci Jean Baptiste di ko wax lu baree bari ci digganteem ak Ousmane Sonko ñu am ay plan yu ñu laloon yu baree baree bari yoo xam ne teg nañ ko lal nañ ko contre Ousmane Sonko état Macky Sall lal ko ak Amadou Ba Amadou Pita Ba bi pour liquider Ousmane Sonko Jean Baptiste xam ko lenn li mu wax ko Atepa Atepa tamit di ko wax lu mu xam ci Ousmane Sonko bi ñu njattee Jean Baptiste. audité ko ba war a nangu alalam Macky Sall ko alal ji nga yor immeuble yeeg yëpp moo moo ko Sénégal la ko moom Senghor la ko joxoon nangu parce que ay HLM lañ ko waxoon def Sénégal dañ koy dañ koy nangu waaye tamit mairie bi recette yi nga waroon déposé eh, euh, trésor déposé woo ko ay centaine de millions Angèle Thiaw mi nga xam ne mooy secrétaire municipal bi ak Biram Baas bi nga xam ne mooy sa gerbaat état civil ñoo ko sàcc lekk àll jee Biram Baas mi ngi tabax étage dëkkam bu ngeen demee fa mu dëkk ca ca ca dëkk séeréer biram Biramba ma nga fay tabax immeuble bu mag Angèle Thiaw bi nga xam ne mooy secrétaire municipal bi mi ngi dëkk Sacré-Cœur ci kër goo xam ne Jean Baptiste Diouf maire bi moo koy fay cinq cent vingt cinq mille francs par mois déglu leen bu baax li ma leen di wax ay chiffres laa leen jox jox leen ay tur jox leen ay liir waxu waxuma di sànni Angèle Thiaw secrétaire municipalu maire Grand Dakar moom digganteem ak maire bi Jean Baptiste Diouf il faut que mu leer. seen diggante dafa louche ndax secrétaire municipal rek yor maire bi nekk Margaret Thatcher lu ko neex lay def ci maire bi di dàq nit ñi di sanctionné nit ñi képp ku soupçonné na yow Ousmane Sonko nga àndal wala patriote nga wala Pastef nga bokk dàq na la moom Angèle Thiaw secrétaire municipal day dàq Angèle boobu mi ngi dëkk Sacré-Cœur ci benn kër gu muy fay cinq cent vingt cinq mille francs par mois secrétaire municipal mënut a fay loolu salaire am sax àggul foofu Jean Baptiste Tine maire bi moo koy fay lan la seq ak Angèle Thiaw dinaa ci dikk Angèle Thiaw boobu am na kër Parcelles Assainies yaayam moo fa dëkk waaye am na kër aussi kër Massar ci waxtu sédiment bi ci benn ci simple secrétaire municipal nga am kër Parcelles Assainies sa yaay dëkk fa nga am kër euh, kër Massar ci waxtu sédiment bi dëkk sacré kër di fay cinq cent vingt cinq mille francs ci simple secrétaire municipal kon xaalis bi ñu doon wax ne dañ leen a audité jàpp leen ay recette municipale yu déposé wul trésor bu Bourguiba loolee moom lañ détourné moom ak Biram Baas bi maire état civil ci maire bi ñu di ko lekk di ki tabax di ki dund jënd seen i kat-kat ci avalu maire bi Jean Baptiste Diouf moom xam na lépp moo leen ci bàyyi parce que ñoom moom la ñuy liggéeyal ñoom ñaar la dénk maire bi yéen waa Grand Dakar yéen ngi xëy dem jéem am ay extrait de naissance bëgg seen carte électeur yi ngeen jot ci du ngeen jot ci seen carte électeur yi xam ngeen lu tax jeunes Grand Dakar yëpp bu ngeen fippu bu ngeen fippuwul dem ci sous préfecture bi gësëm ko poñe leen seen carte yi du génn parce que seen carte yaa ngi ci sous préfecture bi mais sous préfecture bu Grand Dakar dafa am benn agent bu ñu fa teg mairie bi moo ko fa teg di ko fay mu dépêché ko ci sous préfecture bi muy bloqué carte jeunes Grand Dakar yi primo votant war a jot seen carte yi leen ci la. maire bi Jean Baptiste Diouf dafay liggéey ak Amadou Ba dafay liggéey ak état dafay liggéey ak préfet ak ministre de l'intérieur ak lépp ñoom lay tegal dil ñoom ñoo bloqué carte yi te ni ñu ko defee Grand Dakar noonu lañu ko defee Sénégal gépp bloqué carte yi ci sous préfecture yi dañ fay dépêché ay agents municipaux yoo xam ne ñoo fay nekk jël carte yi nga xam ne seen groupe Grand Dakar boobu yéen waa Grand Dakar am ngeen groupe bi nga booy Grand Dakar ak seen groupe yëpp dañ leen a infiltré jël seen tur yëpp ak seen filiation yëpp dem ci état civil bi nga xam ne Biram Baas moo koy géré ñi jarbaatu maire bi mu jël seen filiation yeeg seen yëpp génne ko def fiche liste dem ca sous préfecture ba seen carte yi ngeen di xaar yéen ñëpp ñu bloqué ko ku fa dem ñu la sa carte gisuñu ko wala ñëwul ñoom ñoo ko tey parce que bëgguñu ngeen voté billahi mafia bu garaaw lañ teg te loolu daf koy liggéey ak Amadou Ba Amadou Ba ak ministre de l'intérieur ak DAF ak préfet bi ak sous préfet bi gouverneur bi système bi ba ci kaw Macky Sall la ngi ci kaw ñoo teg seen système noonu lañ def Sénégal gépp fu a ngi pare ne xamu leen lu xew ñii dañoo teg système pour sàcc élection yi c'est terminé ngeen nekk fu di pare ne yëgu leen lu xew yàgg yàgg di ngeen xeex bu ngeen xeexul bu ngeen yéen xamu leen di ngeen ko seqal ñii mafia lañu ñii lii du état lii mafia la sous préfet préfet euh, euh, mairie bu Grand Dakar dafa jël ci agent bi kenn yóbbu ko ci sous préfecture bu Grand Dakar bi teg ko fa di ko fay kooku di def di xool carte yi di di trier di xool liste bi ñu ko jox ci mairie bi nga xam ne yéen ñi nekk Grand Dakar yéen ñi nga xam ne fa ngeen juddoo yéen ñi nga xam ne fa ngeen domicile yow yéen ñi nga xam ne am nañ seen tur seen sant seen date de naissance yëpp am seen numéro yi te ngeen inscrire woon di xaal seen i carte ñu jël bi jox ko agent boobu bi muy muy nekkoon daf ko yëg

ngeen xam ne man waxantuwuma bi mu xuloog Ibrahima Ndiaye sous préfet bi d'accordul ci màggu yu ñuy def moom Jean Baptiste Diouf mu boole Ibrahima Ndiaye daal di koy wax Amadou Ba premier ministre Jules de Ba Amadou Ba def pression wax ko Macky Sall ñu dàq sous préfet bi Ibrahima Ndiaye jëlee ko fa conseil des ministres le 8 novembre bi passé lañ fa jëlee sous préfet bi barki démb lañ doon def passation de service jël koo xam ne moom bu ñëwee dina continuer liggéey boobu mu tudd mu tudd madame Ndioro Ndioro Sarr

moo su ma leen gisee ngeen di pare damay rey quoi ngeen di fol ku nekk ci mbedd yi di mbell mbell ñii ñi ngi techniquement ñi ngi préparé pour xamu leen lu xew naa leen wax ñoom fu ñu jëm dama leen di wax seen i plan ak fu jëm ak élection yi naka lañ ko doon dama leen koy démontré lépp laa xam dama leen infiltré lép laa xam ci ñoom li ñu def xam naa xamu lu xew may wax ngeen naan ma noo Bassirou Diomaye Faye yéen nee naa leen du am ndam ci li ngeen di xeex parce que ndam ci benn nit ngeen ko mën a ko léegi Bassirou ngeen di wax xamu leen lu xew mi ngi suñu kanam man nah, samay wax jallu muus la parce que man duma lambatu duma waxal li ma leen di wax lu leen nañ nañ nañ lu mel ni bi dama febar mais il wax ak yéen ñu dakk kon préfet bi ibrahima ndiaye bi nga xamna andul ki seen maguy indi Ndioro Sarr nommé ko sous sous préfet mu remplacé sous préfet Ibrahima Ndiaye appelé à d'autres fonctions xamoo fu mu nekk nommé wuñ ko sax dañ ko sànni ci àll ba comme dëkkul mafia yu seppi ko ni ñu ko defee Grand Dakar noonu lañ ko defee ci sous préfecture yeeg préfecture yi nekk Sénégal yëpp dix mille cartes bàyyi cinq cent mu génn yénn jeunes dem ne jot nañ suñu carte ngeen am cinq cent yaakaar na carte yaa ngi neuf fekk neuf mille cinq cent dañ leen di lâchel quelques heures seen booy yi génn patriote yi làppate yi waaye jot naa sama carte dem leen ngeen kontaan yaa ngi yi génn benn ñaareel bi dañoo imprimer ay carte ñoo xam ne dañoo décédé ay carte ñoo xam ne nekkatuñ ci fichier yooyu kenn du ko jëli parce que carte yooyu seen i dee nañu bu yàgg wala carte yi amatuñu identité ñoo ko tey téye carte yi nga xam ne nag seen i borom xaar carte nouveau votant yeeg xam nga les primo votant É com ko teg ko fële kenn imprimé wu o imprimé ci tuuti Mano, ci préfecture yi mën é fi téye ko loolu mooy É bi ñuy sàccee élection yi é leen lu xew man ay parrainage vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris kon sous préfet bu Grand Dakar Ibrahima Ndiaye bi bañul maguy bi dàq nañ ko indi njoore saar bi nga xam ne moom dina nangu maguy bi parce que ñoom ñoo ko namee seen nit é ñuy teg ñoom fuñ la ñuy gis nga ni Macky xëyee dàq Sénat parce que Sénat dañ ne nañ jox fii si Ousmane Sonko mu dégagé la ñoom ñëpp sous préfecture bi Ibrahima Ndiaye doon lànk ne bu ñu màggu yee jël carte ko nëbb carte primo votant yi ñu jëlee ko fa indi Ndioro Sarr Ndioro dina ko nangu te loolu lay amee fépp te moom maire bi moo ciy liggéey ak Amadou Ba ministre de l' intérieur DAF DGE Macky Sall ñoom ñëpp mafia organiser wu élection pour ñàkk ko dañuy organiser élection pour gagné ko Amadou Ba la ñu mu gagné

kër yi nga xam ne daf ko doon ci yaayam te Senghor ko ko mayoon muy ay HLM Sénégal moom Macky ne da koy nangu moom lañ ko téye poñe ko ne ko da ngay ànd ak ñun defal ñu li ñu bëgg wala ñu nangu kër yi tëj la ci kaso bi sàcc nga suñu alal alalu Sénégal ci wàllu impôt municipal yi versé woo ko yow maire bi yàgg sa secrétaire municipal Angel Thiaw bi nga xam ne yéen ñaar am na ay tuuma yu ñu leen di tuumaal ci yéen ñaar. maire bi Jean Baptiste Diouf ñu ngi koy tuumaal ci secrétaire municipal bi ndax maire bi Angel am na jëkkër Angel am na jëkkër mais doom bi mujj am a jëkkër ji jëkkër ji def na ko doom ji juruma ko du sama doom coow li na kur déglu leen baax na Angel secrétaire municipal bi maire Grand Dakar am na doom ak jëkkër jëkkër ji ne ko doom ji sama doom juruma ko lu tax moog jëkkër ji ñoo xam ñoo xam lu tax jëkkër ji ne ko juruma ko loolu moom jëkkër ji ñoo xam jëkkër ji moom xay na am na ay raison ñu toogaat ba fan yi la ñu ne Angel dafa ëmb Angel secrétaire municipal bi nekk ci maire bi di régner di def lu ko neex mel na moom mooy maire bi parce que meer bee ko jox pouvoir yëpp lan la seq ak maire bi ba mën a def loolu ci maire bi loolu question la ab laaj la temps yi la ñu signalé ma ne dafa ëmbat moom Angel bi mu ëmbee jëkkër ji fase jëkkëru Angel divorcé na ak Angel ça fait dix jours Angel liggéeyewul ci mairie bi mi ngi soog a ñëw barki démb la ko wax mais dix jours am ñu ne ma est-ce que demul avorté ji ak kan moo jur doom ji loolu question la parce que su may wax lu leer dama naan lii leer na ma su ma leerul damay laaj dégg naa ñu ne dafa ëmbaatoon fan yële rumeur bi di daw ci biir mairie bi ak ci Grand Dakar gi fépp. ñu ne jëkkër ji fase na ko te doom bu njëkk bi nga xam ne bi nga ko amee ñu ne jëkkër ji na juru ko mu ñëw ëmbaat beneen ëmb bi jëkkër ji fase ko faf léegi ëmb yooyu moom Angèle fan la ko jëlee kan moo jur doom bu njëkk bi deuxième doomam bii moo ëmb yaa deux trois mois toog na dix jours yoo xam ne liggéey si wul am ñu ne est-ce que avorté wul laaj la néew ma dafa avorté néew dama ne am na ñu ne est-ce que avorté wu parce que jël na dix jours yoo xam ne gisuñu ko ci maire bi te mooy secrétaire municipal bi mooy régné en maire di dàq képp ku mu jàpp ne Ousmane nga àndal Pastef nga àndal mu liquide ba pas plus tard que avant am na benn jeune bu dëkk Grand Dakar bu fekkee ni ngi may déglu mi ngi fa dem di outil extrait de naissance pour bëgg a def concours douane ak yeneen yeneen ñu ne gisuñu registre yi jël registre yi téye leen faa am benn këyit téye lépp. loolu ab laaj la na ci Angel tontu tapoter le live tapoter TikTok tapoter ko tapoter leen ko mu yaatu waa Grand Dakar dama bëgg ñu dégg li may wax kon Angel yow dama lay laaj lan nga seq ak Jean Baptiste Diouf le maire de Grand Dakar ba mairie bi nga reñee am doole ci mairie bi di dàq ak a tëj ak def lu la neex yow Angel laaj boobu dama la koy laaj sa doom bu njëkk bi sa jëkkër na juru ko kan moo ko jur sa deuxième ëmb bi nga ëmb mi nga téye ba léegi wala da nga koo yàq ab laaj la de tuumaalu ma la ak kan moo la ëmbal yow Angel loolu na leer da nga ko war a leeral waa Grand Dakar rek ñi ngay liggéeyal ak Grand Dakar gépp ñu xam dix jours yi nga absenté ban clinique nga demoon su fekkee da ngaa dem clinique ban la loo doon def ci clinique ba est-ce que da ngaa yàq sa ëmb bi waaw wala déet loolu ab laaj la loolu ma da koo def de dama lay laaj yow Angel Thiaw est-ce que sa jëkkër fasane la waaw wala déet tontu ci Sénégalais yëpp ngi lay xaar ak waa Dakar Angel Thiaw parce que li ngeen nekk dafa ëpp jël àll du réew mi di ko sàcc jënd ci ay kër dëkk ci seen waajur di dund dund gu neex Sénégalais yi di bëgg a dee waa Grand Dakar lekk ñu naan ñu mënut a continuer ça suffit depuis Senghor ba léegi c'est comme ça sàcc àll du réew mi di ko dundee ça va arrêter. yow monsieur le maire. Jean Baptiste Diouf bërki démb revue de presse ITV kan moo def revue de presse ITV est que xam ngeen ku def revue de presse ITV ITV mooy télévision wu Mamadou Ibra Kane boobu ITV am na ñi def revue de presse man du ma leen déglu mosuma leen déglu dañ ma remonté ay information na ma déglu revue de presse ITV pour xamal ne waa Grand Dakar dañoo féroce maire bi waa Grand Dakar ñoo koy surveiller fa am ay kàngam yu nekk Grand Dakar yoo xam ne ñoom ñooy surveiller maire bi mouvement yëpp lañu xam li mu def xam nañ ko ak ñu nekk ci biir état bi nekk biir gendarmerie biir gendarmerie au commandement de la gendarmerie dañ may renseigner man au commandement de la gendarmerie dañ may renseigner waxuma leen ngeen dem dal ci kaw Moussa Fall nag Moussa Fall fetal la yéen bu ngeen dal ci kaw mu mu mu leen rey Moussa Fall bandi la da ngeen yaakaar ne yéen ak moom a ànd mais Moussa da leen di jàppale des fois da leen di xeex parce que musa wuyu la paaka ñaari bon la Moussa Fall général Moussa Fall donc sama source yi nekk oh, dir au commandant de la gendarmerie parce qu'il y a des patriotes partout tapote le live te TikTok tapote, tapote e pi Youtube, euh, Facebook partaje mou yate ak eme, eme, partaje tout sa denge de parce que man dama bari ay source dama bari ay ruq-ruqaat man ñi may informe moo tax man duma jël ben information so ma wooyee wax ma légui dama koy téye na pat out def sama recoupement ut bu mat sources daal di croiser sama source yëpp uma ben source man duma déglu ben wax duma nitu ben nopp jamais dama wax benn wax rek ma tëb déedéet dama koy croiser parce que xamna technique de croisement des sources xamna naka la ñuy recueillir informations naka la ñuy sélectionner information naka la tamiser information naka synthétiser information naka la choisir la bonne information stratégique ak naka lañ koy véhiculer technique yooyu yëpp dama ko xam motax tax doo wax rek ma tëb dede soo ma waxee dama koy téye su ma lambe làmb gisuma ma archiver ko teg di dox yu baree bari dama ko xamoon teg mais comme enquête bi matul ma bàyyi ko fa mais da ngay xëy benn jour rek complément bi nga doon xaar ñëw nga recouper nga boole leen mu mat Yakam tu. Je suis extrêmement renseignement, man, avec toute modestie. Macky Sall ma renseignement Macky Sall lu mu xam xam naa ko je suis extrêmement renseigné moo tax su may wax ci passé di wax ci Ousmane Sonko làpp tey di mbelli mbelli xamuñu li xew man je suis très renseigné réew mi ku ko yor réew mi Sénégal ku ko yor ding ma déglu par force Sonko ak ñëpp a ci yam wala ma kepp caisse ci parce que je suis très renseigné man j'ai des réseaux lu leer la leen wax par force ku ma ci wul xam dégg de Jean Baptiste boobu fay financer les scouts fay financer les scouts fay financer Alekaza parce que Alekaza dañu am doole Grand Dakar am nañu bari ñu fa nek parce que Grand Dakar xam nga c'est un melting pot Grand Dakar comme Grand Yoff fa bari ay gars yu jógee Joal yu jógee Casamance ñeu melting pot la foofu c'est un quartier melting pot Grand Dakar d'un coup. Euh... dañuy joué ki loolu léegi garde du corps Jean Baptiste Diouf maire Grand Dakar garde du corps di Ousmane Diallo Ousmane Diallo garde du corps du maire de Grand Dakar, Jean-Baptiste Diouf, voilà bon. garde du corps Jean garde du corps Barthélémy Diaz Barthélémy Diaz Ousmane Diallo Ousmane Diallo bon non Barthélémy Diaz wala Jean-Baptiste en tout cas Boudoul Jean-Baptiste di Barthélémy Diaz Ousmane Diallo bi garde du corps kenn la ci ñom ñaar parce que Jean-Baptiste Diouf ak Barthélémy Diaz di liggéey Ñom ay waayu tanawat lañu ñom ñoo bokku ka bu leen fàttali ne Barthélémy Diaz 2004 2005 la ñeu PS la ñeu rew yi 2004 2005 la ñeu PS lay ont commencé politique Ousmane Tanor Dieng topte ko Jean-Baptiste ak Barthélémy Diaz ñoo bokku mbuus ñom ñaar Amadou Ba la ñuy liggéeyal wax leen ne leen Barthélémy Diaz bayina Khalifa Sall gëmu ko naa ci dikk Barthélémy Diaz Amadou Ba lay liggéey parce que dañu ko téye moom tamit ci ay trafic yu garaaw téye ko ci ay audit moom ak Jean Baptiste Diouf bi papaam négocier ak Macky Sall ñu indi ko mu bokk ci camp bi di liggéey ci suuf pour Amadou Ba mën a falu Barthélémy Toye Diaz Amadou Diouldé Ba Pita bu Guinée lay liggéey pour mu falu Sénégal moom ak Jean Baptiste Diouf maire de Grand Dakar lu leer la je formel j'ai des ci li may wax. Ousmane Diallo bi nga xam garde du corps soit Jean Baptiste la wala Barthélémy Diaz mon frère Djibi Diallo la Djibi Diallo c' le préfet de Dakar <laughs> Djibi Diallo le préfet de Dakar bi daan kenn du fi manifester préfet de Dakar day politique préfet de Dakar membre APR la Macky Sall le préfet de Dakar Djibi Diallo son frère Ousmane Diallo garde du corps soit Jean Jean Pierre Diouf le maire Grand Dakar wala Barthélémy Diaz pour xamal leen ñoom ni ñu liyeewoo link ba ci sax bu ñuy def conseil municipal Dakar des fois duñu am quorum parce que waa passer fi comme baax def na génn ci bureau municipal bi des fois duñu dem duñu ñëw dañuy manqué dañuy ut ay fausse procuration jox ko ay nit yu ñëw di voté ci biir conseil municipal bi de façon illégale loolu préfet bu Dakar Djibi Diallo moo koy def moo leen koy defal préfet bu Dakar parce que son frère il garde du corps de Barthélémy Diaz ou de Jean-Pierre Diouf dinaa ci dikkaat précision pour xamal leen mafia bi nekk ci réew mi ngeen tapote live bi YouTube bi Facebook bi ak TikTok bi surtout Karenu Fajor t'inquiète pas laisse-les parler ñom xamuñu ñu koy wax ñu ci bari c'est des faux comptes lancés par Team Georges de Macky Sall pour yàq deru Akhenaton parce que Akhenaton du waxam tudd làmbatu li muy wax daf fay daaneel état moo tax léegi il faut que ñu jël seen faux compte yi na Akhenaton Macky Sall lay liggéeyal Akhenaton patati boo demee seen profil yi amul dara lu fa nekk c'est des faux comptes y a rien ils publient rien lu dul tapat lu dul dal ci kaw Akhenaton yàq derem yenn lappato patriotes yi ànd Ousmane Sonko comme Akhenaton àndul ci seen stratégie bi mooy ànd ak influenceur yu Macky Sall yooyu foo compte yooyu bëgg a dal ci kaw ak Akhenaton pour mu noppi bëgg koo discrédité yenn làppato patriote yi daan Bassirou Bassirou Moussa yi ànd ak ñoom nag dal ci kaw ak mais Akhenaton gone koy songu mais maga koy daan wallahi al li ma xam t'inquiète pas t'inquiète pas man seen wax yi tappale yooyu faale wu ay Macky liggéey yooyu man li ma man li ma wax maa ngi ko teg ci ko taabal mu leer li ma xam ñooñu di ko wax seen bàyyi xamuñu ko ñoom ñoo may song mais seen bàyyi duñ ma song bref man je suis extrêmement réseauté partout dans le monde j'ai des réseaux j'ai des informations waaw Macky Sall xam na loolu yéen a may fonto mais Macky du ma fonto dégg nga kon ñu continuer dama lire euh, benn commentaire Karenu Fadior rek taxaw ci mais on continue après laisse les laisse les lapotons parler tu n'y peux rien su ma leen su ma leen ne di ngeen xeex par force ngeen weddi ma samay wax jàllu muus la mi ngi suñu kanam di ngeen xeex par force wala ngeen nekk ay jaam billahi wallahi wa taalahi di ngeen xeex ak wala ngeen nekk ay jaam daa iman man du ma waxant man li may wax dafa leer dama xam enjeu yi xam ñii fu ñu toll xam na ñuy def ay parrainage ki ay Bassirou Diomaye Faye xamu leen lu xew da ngeen di nelaw di ngeen xeex par force wala ngeen nekk ay jaam par force mi ngi suñu kanam ma wax ne Barthélémy Diaz ak Jean Pierre Diouf bii maire Grand Dakar ñoo ànd ñoom ñaar dem leen YouTube ngeen tàppe affaire Ndiaga Diouf keroog bi ñu ñëwee di perquisitionné kër Barthélémy Diaz ci affaire Ndiaga Diouf bi ñu ne Barthélémy ko rey wala dugg kër Barthélémy Diaz pour def perquisition keroog bu ngeen xoolee vidéo bi YouTube yëpp gis Ousmane Tanor Dieng mi ngi ànd ak Jean Pierre Diouf bii ma leen wax maire Grand Dakar ñoo ñëw taxaw ci kaw buntu kër Jean Pierre Barthélémy Diaz ne police comme gendarmerie du ngeen dugg parce que amu leen mandat de perquisition keroog Ousmane Tanor Dieng Barthélémy Diaz da ko woo mu jógee point mu jógee fan résidence këram daw ñëw ànd ak Jean Pierre Diouf bii ma leen di wax tey maire Grand Dakar ñu ñëw taxaw ci kaw buntu kër Jean Paul euh, Barthélémy Diaz ne amu leen yéen police gendarmerie yéen ñi bëgg a def perquisition amu leen mandat de perquisition pour dugg kër Barthélémy Diaz il faut ngeen dem uti ko ñu wàññee ko dem uti ko ci procureur soog a ñëw le temps que ñuy dem duggu ko mandat de perquisition kër Barthélémy Diaz le temps que ñu ñëwaat amna lu xew kër Barthélémy Diaz lu garaaw a garaaw a lo a motax Ousmane Tanor ñëwoon taxaw ci buntu bi ne du ngeen dugg sans mandat de perquisition loolu dina ci dikkat teg leen seen baram fofu dina ci dikkat ci benen laay wax leen lan mo xewoon jour bobu ak lu tax ñu def lool pour que Barthélémy Diaz xam man je suis extrêmement renseigné te lu ma leen wax ni ay élément laa yor de damay wax nii mais lu yàq damay wax ni <laughs> loolu su ma ko waxee Barthélemy war na ma xam war na xam ne man waxantuuma ay tur laa koy jox ñoo xam ne ils étaient témoins de l' événement la ñu def ci loolee la ca xew yëpp dama ko koy jox moo xam ne làmbatuwuma jour Bob, Barthélémy Diaz am nga ci sa élément yi benn garde du corps bu tudd Barthélémy Diaz xam nga Barthélémy Toy Diaz est-ce que xam nga Habib ci sa garde du corps yi sa bu tudd Habib soo ko xamee nga def ma bala may avancer parce que dinaa ñëw ci dossier Bob. bon on continue Nous sommes gouvernés par des narcotrafiquants, narcotrafiquants colombiens. C'est des narcotrafiquants. Nous sommes Colombie. C'est des narcotrafiquants. Comment c'est que tu qui C'est des narcotrafiquants. Ils sont prêts à tuer tous les Sénégalais pour ces narcotrafiquants. 3 tonnes de cocaïne, 2 tonnes de cocaïne. Nous cocaïne cocaïne ñoom la di di trafiqué def ay faux billets di blanchir xaalis comme Bougazeli jël ay billets noirs di ko blanchir ay milliards di ki liggéey naa ci dikk dinaa ci dikk j'ai des preuves de ce que je dis teg leen seen baaraam foofu tapoter le live mu mu mu continuer Jean-Baptiste Diouf maire de Grand Dakar sa jabar Marie Jeanne dafa feebar nga war ko yërëm war ko toppatoo parce que dafa am cancer yërëmoo ko toppatoo woo ko nga nekk ci maire bi di def leneen loo xam ne bu ko sa jabar yégee tey cancer bi mën na ko fi jële mën na dee Marie Jeanne Ousmane Diallo bima leni wax moy garde du corps Jean-Baptiste Diouf effectivement du bu Barthélémy Ousmane Diallo moy garde du corps Jean-Baptiste Diouf Ousmane Diallo bobu ak Djibi Diallo le préfet de Dakar ñoo y nday ak de fréram am la kon le préfet fay liggéey ak Jean-Baptiste Barthélémy Dias su ma la né Habib un war nga xam kan moy Habib yow foofu laay yem dégg naa la nga dem Paris barki démb di waale di wax naan Sonko lii xaw lay wax ci Ousmane Sonko ñu tuddoo Khalifa Sall ngay naan que le meilleur gagne mais doo tudd Khalifa parce que Khalifa bàyyi nga Khalifa léegi Amadou Ba ngay liggéeyal parce que dañu la téye ci ay trafic obligé wala nga dem kaso nga trahir Ousmane Sonko d' abord ñëw trahir Khalifa Sall ensuite donc Barthélémy Dias trahir na Ousmane Sonko d' abord moo Khalifa Sall. bi ñu paree ñoom ñaar pour trahir Ousmane Sonko ba pare Barthélémy Dias ñëw at Khalifa Sall trahison ci kaw trahison appel ci kaw appel ci suuf ba député yi nekk assemblée nationale député taxaw yi dañoo diviser wu en deux camps ñii dañoo ànd ci génn yeewi askan wi am député taxawu Sénégal yoo xam ne ñoom d'accord ñu ci génn yeewi askan wi parce que dañoo perte ay avantage ci biir assemblée bi yoo xam ne ay poste yu ñu amoon yoo xam ne ànd bi ñu ànd ak Macky Sall voté ay loi ki tappale dafa ci am ñoo xam ne ci biir député taxawu yi d'accord ñu ci donc dañoo diviser wu tey les députés de taxawu ci biir assemblée nationale bi loolu moo tax Khalifa risque de ne pas avoir le parrainage des députés taxawu moo tax mu dem uti parrainage citoyen Khalifa ngi ut ay parrainage parce que ku mel ne Barthélémy Dias du parrainé Khalifa Sall du ko parrainé man maa leen ko wax fii du ko parrainé de te treize lañu te treize lañu war a am pour war a am Barthélémy Dias moom xawma kan mais du parrainé Khalifa Sall am na ñeneen ñu nekk ci biir taxawu ñoo xam ne du ñu parrainé Khalifa Sall donc Khalifa ànd naag Barth ñu trahir Ousmane Sonko Barth ko ci

léegi boo ñëwaatee ci mairie bi Biram Baas responsable moo yor comptabilité bi yor état civil xam nga mën a yore état civil yor comptabilité moo lay xamal ne mairie bi amul règle lu leen neex la ñuy def di gundaandaat lekk alalu ci alalu réew mi tabax seen i kër na paañe seen i jëkk Biram Baas yor comptabilité mairie bi yor état civil loolu fu mu am Angel Thiaw nekk secrétaire municipal bi di décider nag moom mooy patron maire bi Angèle di dàq dàq na fa ay nit yoo xam ne dañ leen soupçonné jàpp ne Pastef la ñu bokk wala boog am na ñoo ñoom ñu dàq leen ay agent yu liggéey ci biir maire bi ñu dàq leen dé bërki démb ci mujj ko bërki waat démb am na ku ñu fa dàq ne ko mise à pied ko dàq ko ci lan soupçonné Pastef la ànd ndax ngay nekkee ci municipalité yow nga ne da bokk ci benn camp di agent bu ñu jël contrat amul droit am benn parti politique loolu loolu loolu fan la am maire yi ña fay liggéeyee kenn ku ci nekk am nga droit ànd ak parti bu la neex nga ne képp ku ànd ak Ousmane Sonko dañ lay dàq ci biir bi yi di gën Dakar léegi yow Angel Thiaw secrétaire municipal mairie Grand Dakar sa jëkkër Jean Sarr bi nga xam ne divorce na ak yow Jean Sarr yow Angel da am ay explication yow war a jox sa jëkkër Jean Sarr man ay tuut laa leen di jox. Jean Sarr jëkkëru ex jëkkëru Angel Thiaw divorcé na ak Angel Thiaw lan moo tax mu divorcé lan la Angel doom bu njëkk bi mën a juru ko Jean nee na juru doom bi deuxième doom bi mu ëmb doom bi ndax mi ngi ci biiru Angel bi ba léegi wala Angel dindi nga doom bi noo ko dindee su fekkee am na foo ko dindee su fekkee am na est ce que da ko dindi wala doom baa ngi biir bi ba léegi waaw wala déet loolu ay laaj la yu may laaj Angel Thiaw secrétaire municipal di ànd ak Barthélemy Toye Dias ñuy liggéeyal Amadou Jules de Baax ba ci dëkk ca Pire ca Guinée te du sénégalais léegi nag Amadou Jules de Baax yéen waa TikTok gis ngeen photo bi ma dugal photo photo photo de couverture bi gis ngeen photo bi yen waa TikTok gis ngeen photo bi ak waa Facebook YouTube gis ngeen photo bi ma dugal souligné ko en rouge gis ngeen photo bi yéen waa TikTok gis ngeen ko est que gis ngeen photo bi ma dugal ci écran bi. TikTok YouTube Facebook gis ngeen photo bi ma dugal photo bi Amadou Julde Ba Amadou Ba gis ngeen turam moo ko envoyé Jean Baptiste Diouf di ko may ay formation cinq cent bourses familiales la ko may cinq cent bourses familiales la Amadou Julde Ba génne jox ko Jean Baptiste Diouf pour lan politique pour nax waa Grand Dakar gis ngeen formation yi ci nekk daf ko may 500 bourses familiales may ko ay formation yu dul jeex pour lan politique clientélisme politique Amadou Ba moko ko ko jox joxu ko benen mairie ki Dakar de mom Jean Baptiste Diouf kott lañ ko jox mu dagale len ci biir mairie bi démb ko mu bëri ci démb y a quelques jours ñu nekk fa di wax ñu paye ak mairie di fen maa ngeeg vidéo yi maa ngeeg lepp sen dil yëpp la am tout maa ngeeg ay audio sen biir ñi wax tek sen mafia sen i dil j'ai tout maa but numéro téléphone Amadou de Ba tout le monde noonu moo ko transféré jox ko Jean Baptiste Diouf 500 bourses familiales lako des jox ak ay les métiers du numérique couture transformation céréale électrification solaire les métiers du bâtiment carrelage maçonnerie patati patata coiffure pâtisserie nelen nak nañu dem jël fiche yi remplir ko suñu ko rempliré choisir métier bi ñu bëgg gratuitement Amadou Ba koy joxe de pour politique gis nga moyen état la ñuy jël budget état formation état yi la ñuy jël jaarale ko ci mairie yi ak ay bourses familiales suñu budget di ko campagne di politique pour mën a falu ñu nañ jël fiche yi Grand Dakar de Amadou Ba ko joxe de Attendez un peu, je bannis quelqu'un qui roulait. ngeen jégal ma yaram bi dafa sutante mais il faut que ñu wax ak yéen ngeen tapoté tak tiktok bi mu yéeg ngeen tapoté ko tapoté le tiktok comme niñ koy waxee léegi 500 bourses familiales lañ ko jox barki demb Jean Baptiste Diouf maire de Grand Dakar jox ko ay formation gratuite yo xam Amadou Ba moo ko ko jox gis ngeen tour bi ci kaw Amadou Ba mo nek ci kaw numéro téléphone bi mako neub ak yeneen i éléments yeneen éléments yu ma manger des preuves je parle pas pour parler jox ko Jean Baptiste mu dagale nit ñi maire Grand Dakar demb ko ma barki demb ñu nek fa di wax ma ngi lepp j'ai tout audio yeeg li ñi wax ak yëpp ak fiche yi ñu war retirer pour remplir ko jeunes yeeg yooyu di leen nax dañ leen dimbali dimbali wuñu leen dañuy politique bu ngeen ko remplir ba nopi ngeen jël fiche ngeen yóbbu ko fan office national de la formation professionnelle bi nekk ci deux voies ou liberté six ngeen yóbbu ko ONFP parce que budget bañu fa voté pour sénégalais yi maa formation professionnelle dañoo jël budget ba orienté ko jox ko yenn maire yi nga xam ne ñooy Benno Bokk Yaakaar ñi ànd ak Amadou Ba ñu di ko utiliser pour di ko politiquer ngir Amadou Ba mën a falu Jean Baptiste Tine jox nañ ko ci cinq cent bourses familiales ak ay formation yu dul jeex Amadou Julde Ba bi dëkk Labé ca Piita ca Guinée bi Conakry moo koy joxe ngir bëgg ñu fal ko président Sénégal te moom du sénégalais Amadou Dia Amadou Ba may profité ci sama live bi ma bëgg ngeen déglu ma bu baax yéen Sénégal gépp yàgg naa taxaw fii ne leen Amadou Ba du sénégalais guinéen la papaam ak yaayam guinéen lañ bi ñu ñëwee Sénégal Grand Dakar la ñu nekkoon yéen ñëpp xam ngeen ne Amadou Ba avant muy wax parcelle Grand Dakar la ñu nekkoon papaam dafa yoroon benn taabal di jaay léegi di ngeen comprendre pourquoi ma ciblé di wax maire Grand Dakar ak Jean Baptiste Diouf ak lan moo tax Amadou Ba après choc déglu leen bu baax li ma leen wax ngeen tapoté live bi mu yéeg Amadou Ba Grand Dakar la nekkoon bi mu jógee Guinée ànd papa ma yaayam bi ñu ñëwee Grand Dakar la ñu dëkk ci baraag yi foofu ñu abaloon ko fa benn këru baraag ma boo xam ne permis d'occuper la woon kër googu ña ko moomoon kenn gisatu leen xamatuñu leen papa Amadou Ba ñu abaloon ko kër gi mu dëkk fa teg taabal ci mbedd mi di jaay ak yaayam bi Amadou Ba demee ba dugg impôt dafa falsifié kër googu jël ko jël ko ci ñi ko moomoon kenn xamatu leen ñu def ko mu def ko ci turu ay parents kër googu tey ñu ne papay Amadou Ba ak yaayam ñoo ko moom ci falsification bu ngeen demee au niveau de la conservation foncière bu Grand Dakar di ngeen gis li ma leen di wax j'ai tous les éléments dañu jël kër Amadou Ba dafa jël kër gi def ko ci papaam ak yaayam te moomuñu ko dañ leen ko abaloon ñu fokkati ko def ko ci seen tur benn ñaareel bi am na kër gu mu takkalool goo xam ne ña ko ñoom xam nañ histoire bi may wax Amadou Ba dem na waxaale ak ñoom ñooñu ne ko suñu kër gi valeur bi temps la Amadou Ba doublé leen bi fay valeur deux fois la valeur kër gi ñooñu jaay ko Amadou Ba Amadou Ba jël na kër googu mu jënd boole ko kër gi mu triché jox ko ay am boole ko ñu ngi koy tabax jamono bii may wax ak yéen bu ngeen demee Grand Dakar da ngeen fekk bi nekk en cours Amadou Ba koy tabaxaat Amadou Ba ñaari doomam bu góor bi ak bu jigéen bi Grand Dakar lañ leen déclaré ci mairie Grand Dakar fa lañ leen déclaré seen naissance maa ngi ak extrait de naissance yi maa ngi ak date de naissance yi maa ngi ak déclaration yépp parce que avant muy jóg ne leen Amadou Ba du sénégalais damaa def ay enquête ba am lu ma téye def ko Sénégal def ko Guinée yor ay document téye di xaar Amadou Ba jóg campagne maa ngi xaar ba mu déposé candidature am déposé gul candidature Amadou Ba. bis bu déposer candidature am conseil constitutionnel ma génn li ma yor yëpp teg ko ci comptable balaa conseil constitutionnel décidé daañu xam ndax Amadou Ba sénégalais la ou pas danañu wax naka la nekkee sénégalais parce que Amadou Ba juddoowul Sénégal papa ma yaayam juddoowuñu Sénégal bu fekkente ne sénégalais la moom Amadou Ba daf ñoo war a wax ndax dañ ko naturaliser kan moo ko naturaliser certificat de nationalité sénégalaise naka la ko amee loolu Amadou Ba daf ñu ko amee ñun sénégalais yi parce que président la république du caaxaan kenn du ko jox ab doxantim Amadou Ba juddoowul Sénégal Amadou Ba Guinée la juddoo papam Guinée la juddoo yaayam Guinée la juddoo piita ca ladde mën naa ko wax Amadou Ba xam na loolu moo tax mu dem collaborer ak maire Grand Dakar parce que état civil ba naissance yaag judd yaag génn yaag dugg yi daf ko intéressé moom Amadou Ba est-ce que yéen a ngi may déglu bu baax a baax a baax déglu li may wax de dafa am ay enjeu yu nganda nganda nganda ci candidature Amadou Ba ci le fait que nekkul sénégalais te doomam yooyu ñaari doomam yi ku góor ko ku jigéen ki kenn ki quatre vingt mille neuf cent quatre vingt seize la judd ma jox leen ay indication keneen ki quatre vingt dix sept xaw ma quatre vingt dix neuf ma jox leen ay indication ñaari doomam yooyu Amadou Ba sa doom yooyu bi mu bi ñu juddoo ba nga déclaré leen mairie Grand Dakar dañ naan x y enfant de Amadou Ba et de Bilo Ba Amadou Ba ñu wax mooy kan Amadou Ba fils de teg teg teg né à Amadou Ba né à Amadou Ba ba ne déclaré Grand Dakar sa naissance né à fan nga def defoo né à Grand Dakar de ñu ne woo ko def te boo ko falsifié état civil bi su ngeen ko falsifié j'ai les preuves c'est tout. tapoté len TikTok bi ngeen partager mu yaak Sénégal gi yëpp xam ne Amadou Ba du sénégalais du sénégalais Amadou Ba du sénégalais lu leer la leen wax te maa ngi xaar maa ngi xaar ba mu déposé candidature am léegi nag. registre bi nga xam ne mooy registre état civil bi nga xam ne ñaari doomu amado Ba yi ñu déclaré Grand Dakar registre yooyu maire bi maire Grand Dakar Jean Baptiste Diouf da koo këf dafa dem ci état civil ba suba teel mu ne ko cakkat génne ko yóbbu maa ngi lay woo yow Jean Baptiste Diouf maire de Grand Dakar ñaari registre yi nga foqati ci état civil maire bi te ay doomu Amadou Ba juddoo ci nekk ci registre yi te nga xam ne. Cette déclaration ba Amadou Ba né en Guinée lañ ci def nga xam ko ma xam ko yow Jean Baptiste Diouf ngay liggéeyal Amadou Ba li nga def ni c'est une faute très lourde de haute conséquence. c'est une c'est une haute trahison en tant que maire tu es un maire donc tu es donc investi d'une mission de service public maa ngi lay wax yow Jean Baptiste Diouf suma paré pas sama ma bi dans les plus brefs délais registre yi nga confisque ta ay doomu Amadou Diouf la ba ci nga làq ko génne ko ci mairie bi tëj ko ndax Amadou Ba moo la ko sant ngir bañ nit ñi am ci accès c'est trop tard j'ai déjà tout dellee ko ci état civil bi sénégalais yi mën a dem constaté ne Amadou Ba n'est pas sénégalais yow Jean Baptiste Diouf man Akhenaton maay wax ak yow soo delloowul registre bi ci état civil bi ñaari doomu Amadou Ba yi fa juddoo ñu déclaré leen te ci biir registre bi c'est clair et net que Amadou Ba est né en Guinée Amadou Ba moo war a naka la nekkee sénégalais je le défie parce que moo ne dafa bëgg a jiite réew mi su premier ministre ça m'intéresse pas ministre ça m'intéresse pas parce que ku ne mën na ko nekk mën nga jëli tubaab jëli japonais sénégalais def ko ministre def ko ko c'est pas grave parce que constitution bi terewu ko mais constitution Sénégal moo tere ne ku nekkul sénégalais exclusivement mënoo jiite Sénégal te Amadou dama koy wax parce que Amadou Ba du sénégalais te li may wax man le moment venu di ngeen ci xam dara et registre bi nga xam ne doomi Amadou Ba yaa ngi ci man dama enquête ba enquête ba Guinée enquête Sénégal kese registre bi nga xam ne doomu Amadou Ba yaa ngi ci yow Jean Baptiste Diouf Amadou Ba mi ngi lay dugal ci loo xam ne haute trahison tu seras pendu lu leer laa lay wax état du caaxaan dafa am traçabilité on a toutes les preuves te su ma la waxee ne j'ai des renseignements war nga moi je suis renseigné au plus haut niveau de l'état on te suit y a Jean Baptiste ni ngi lay acte bon def ni ngi koy xam ñu ngi lay wax mais tu as intérêt à faire très attention Jean Baptiste Diouf maire de Grand Dakar foofu laa yem am naa yeneen dossier ci yow Jean Baptiste yow ak Barthélémy Dias dinaa ci dikkaat au fur et à mesure tey damay lancer rek. li ma nar wax moo gën a garaaw lii de waxaguma dara lii may wax ni lu mu garaaw garaaw garaaw am naa ay dossier ci ñoom ñu gën garaaw yi billahi wallahi taalahi man maa leen ko wax parce que réew mi kenn du ko caaxaane dafa doy kon comprendre ngeen lu tax Amadou Ba approché Jean Baptiste Diouf pour pour électorat catholique bi la mais pour gérer son état civil lui Amadou Ba parce que il a un problème il ne peut pas prouver qu'il est sénégalais dëkkul fenn ki Sénégal bu tayee mun a gannaaw Dakar gannaaw suba mun a passé ñu naan ma nga dëkk xaw Fuuta ay fe képp ku la naan Amadou Ba Fuuta la dëkk Amadou Ba lay jàppale moo xam mu nekk biir Pastef moo xam mu nekk ku la ko wax rek c'est un pion moytu leen Amadou Ba n'est pas sénégalais sa femme n'est pas sénégalaise man maa ko wax wax leen mu lu def Sénégal lan la fi mas a def kenn ko koo xam dëkku fi amu fi ay nijaay amu ay maam benn maamu lu ñu ko fi dëkku fi lu leen laa leen wax dem leen Grand Dakar ngeen bëgg jox réew mi am ku nekk mais vous vous rendez compte di ko ñaan dafa raciste c'est pas une question de racisme j'ai rien contre les Peuls les Joola les sorciers, les Wolof je m'en fous tout ça moi je suis pas raciste mais je suis patriote j'aime ce pays du ma ko dem la preuve Amadou Ba lépp la Amadou Ba le 13 novembre 2023 à 23h pile yow ak Barthélémy Dias dem ngeen seeti Jean Baptiste Diouf ci biir à la mairie.

vous avez affaire à une république de rock'n'roll. Sexe, drogue, argent sale, ce sont des narcotrafiquants. Macky Sall moo ko jiite mooy bi yàgg na ko wax ay bandi ngeen ko seqal. il faut un tribunal populaire pour les juger. C'est une haute trahison. Jean-Baptiste Diouf, Jean-Baptiste Il y a un dossier qui ak très Avec Charles Diouf.

état boo xam ne dafay dox ci dëgg état boo xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy indi ñoom ñooy infiltrer le deep state état Amadou Ba am doole Macky Sall mais ñoom du ñu état état du benn nit ñaar nit donte ñoom am nañu doole mais am na ñu nekk ci biir état ñoo xam ne ay républicain lañu dañu gëm état gëm éthique gëm état de droit nekk ci seen biir di toog ak yéen di xàqataay ak ree ngeen yaakaar na ñoom ak yéen a ànd fekk ñooñu ay patriote lañu dañu bëgg état.